mbokki internautes yi dal leen ak jàmm remaniement ministériel gi nga xamante ni euh, ñu ngi koy xaar ci gouvernement bu Sénégal mu ñeel nag euh, coowal euh, gouvernement bu yees bi nga xamante ni président Macky Sall daal dinay annoncé ne daañu amal remaniement ministériel bu yàggul dara ndax nag fu mu toll nii def ko daal di nag laaj ndax bëri na ay coppite yu ñu war a indi ci gouvernement bu yenn ministre yi war a ñeneen ñu war leen daal di nag euh, tabb ñu bëri ci analyste yi foog ne ab wàllum nag ñi nga xam ne ñoom ñoo daal di échoué ci élection locale yi de ñu daal leen di gagné ci seeni gox ñoom la ñu war a daal di nag tëbal ña ca des ñu ngi daal di wax ne rek ginnaaw élection yi le ñu daal di nag càmbar bilan càmbar itam ñi nga xamante ni amatuñu euh, benn représentativité ak benn code de popularité ci seeni gox goxaat waaye nag jamono ji jàppale leen ni jamono ji ñuy àddoo nag am na ci ñoo xamante ni nag dinañ leen nommé eh, ci nag gouvernement bu yees eh, bile cinq ci ay eh, ñett ñu cinq ñoo xamante ni seeni tour daal dina fuité ca liste ga Macky Sall bëgg daal di nag soppi ci gouvernement bi ci nag fan yi di ñëw voir nag ay bës yi di ñëw président Macky Sall dina mettre en place benn gouvernement bu yees ak retour bu poste de premier ministre ak actuellement chef de l'État euh, daanaka nag mi ngi nekk di multiplier ay audience euh, ngir nag jéem a euh, togg ak concocter nouvelle liste gouvernementale waaye nag ci presse bi yenn ci ay tour dafa daal di nag fuité ndax nag d'après ay sources yu xibaaru point sn président Macky dina daal di nag woolu cinq ci ay cadres yu gouvernement bu nga xamante ni nag daanaka en deux mille dix ko tegoon muy Aly Ngouille Ndiaye nee nañu nag dana dikkaat euh, Mimi Touré itam ñu ne dana dikkaat ci gouvernement bi Amadou Ba itam dina dikkaat Mouhamed Boun Abdallah Dionne ak euh, Omar Youm nee ñu ñoom ñii nag dinañu dikkaat ñi nga xam ñoom ñooy Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba Omar Youm dinañu nekk ci gouvernement bi ancien premier ministre yi di Mimi Touré ak Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñoom itam dinañu bokk ci entourage bu président Macky Sall objectif bu Macky mooy remporter élection législative yi ñu daal daal di nag jëm moo tax faaw mu daal di boole euh, ci ay euh, wetam ñi nga xamante ni ñoo daal di nag gagné ak euh, nag perdant. li nga xamante ñoom ñooy perdant wu kawam gile ab information la wala ab fake news la réponse bi dinañu ko xam bu yàggul dara waaye nag tur yi dafa daal di fuité ci ne nag ñoom ñi Macky Sall mi ngi daal di nag waajal seen nag retour